kenn xamewuñu politique waaye dañoo gis ni réew mi demee ndax kii fi ne buñ ko fi bàyyee ñun ñi nga xam si ne ñoo toog di xoole ba mu nekk fi danañ am jafe-jafe yoo xam si ne kenn mënu ko wax koo xam ne si ne nekk nga président de la république juróom-ñaari at defoo Touba luñ mën a wax boo boo faluwaatee def ko da nax nit ñi te ñun sëñ Touba rek moo ñu ñor dañoo gis taalibe bi sëñ boo xam ne siine leer na ne mën naa yor réew mi te gëm naa ne bu ko yoree lépp lu luñ daan jooy waa Touba ak adduna bi yëpp lépp luñ daan jooy dana ko matale. ndax xam nañ ko ci ak dëggoom ak ngorom ak diineem xam nañ ko ci moom. ñun nag bu ñu jógee di jàppale président Idrissa Seck du lum ñu defal du lum ñu jox du luñ yaakaari ci moom waaye dañoo xam ne mbokk yi taalibe yi nga xam si ne ñoo dëkk ci réew mi am nañu jafe-jafe te jafe-jafe yi Macky Sall mënatu koo régler kon fokk ñu jëlee ko fi indil koo xam ne si bu egsee mu régler jafe-jafe yi te président Idrissa Seck rek laa xam ne mën naa régler jafe-jafe yi. loolu moom ba bay boo képp koo xam si ne yor nga carte nga téye ko bu baax yor ko bu baax ndax xam ne buñ demee ci la 24 février ñu jëlee fi Macky Sall ci lu gaaw nit ñi dañ naan ay deuxième tour man gëwuma deuxième tour dama bëgg ñu dóor ko premier tour mu dem toogi ndax loolu am na fi mën na ko kim gëm muy sëñ Touba lum mu ko mënulut amut te gis naa fi lu ne gis naa ñu koy tëkku ngir ñëw gi ñëw ci sëñ Touba waaye nag du ko rëccu sëñ Touba kenn du nekk ci moom di ko rëccu kon nañu góorluwaat bu baax a baax ndax mbooloo mi eh, bari na bëriwul ndax mm, njiit yi ñoo ñoo fi teew ndax mbir mi dañoo bett. démb ci heure bi yaakaar naa ñi ñëwoon fii ñu koy coordonné démb ci heure bi lañ ko tàmbalee woote ne leen suba ci heure bi dañ fiy ñëw pour waxtaan moo tax mbooloo mi demee nii waaye gëm naa ne bu ajjuma wala saabu bu Idrissa di teg tànkam Touba dana xam ne jëflante na koog sëñ Touba te sëñ Touba am na ay taalibe te ñun taalibe yi sëñ danañ ko fay lim lim lim def danañ ko ko fay bu baax a baax ba mu xam ne sëñ Touba amul morom sëñ Touba amul morom moom ñun xam nañ ko bu yàgg waaye. ñëpp danañ xam ne bu ñu demee le 24 février danañ xam ne gëm Sëñ Tuubaa rek moo wóor kon nañ nañ nañ gën a mobiliser mbir mi képp ko koo xam ne si ne yaa ngi yaa bokk ci mouvement bi ñi ngi lay nuyu di la siyaare te di leen wax ne leen mouvement bi doonut ci whatsapp bi rek wala di di daje di di waxtaan dañoo bëgg ñuy dugg kër ak kër di waxtaan ak ñoom di leen mobiliser di wax ak ñoom bu le 24 février ñu génn woteel président Idrissa Seck bulletin bi nag képp ku ko xamut bulletin bi nii la mel na ko ñëpp xam bu ko kenn jaawale ndax bulletin yomb naa xàmmee na ko ñëpp xam orange bii la doon taalibe Sëñ Tuubaa kon na ko ñëpp xam bu la 24 jotee ñu dem woteel ko ko mu jël réew mi liggéeyal ñu niñ bëggee réew mi ndax xam naa ne jafe-jafe yi réew mi Idrissa sekk rek moo ko fi mën a jëlee kon ñun ñu woteel ko war nañu. muy yàlla dafa dogal fii ñu dëkk ci Touba. rawatina fee ca ndindi sëñ Fallou yàlla dafa dogal ni ñun Idrissa sekk lañ gëm doon ko xaar doon ko déglu doon ko bàyyi xel te fii bu fi ñëwee ni ko sëñ Afe waxee noonu lañ koy defee lépp luñ jàppoon danañ ko bàyyi dem tertu ji ko moom ci boppam xam na ne tiit na waaye bu soobee yàlla le 19 février. carte yëpp nañ ko jël jébbal ko sa Seck mu jiiteel ñu Sénégal ndax porte bonheur la porte bonheur nag bokkut ak porte malheur porte malheur weesu wut réew mi lii muy dund tartar yi accident yi gendarme yi dee ngay sacrifier nit ñi mais li yaa moom nit ñi ngir lan ngir simple pouvoir ñun duñ nangu loolu ñu ngi ci sa Seck tey ñu ngi ci moom ëllëg ba lu luñ ci góobee gar ko. mouvement Idy fal idi 2019 bi yëpp euh, di leen wax ni très honnêtement. soit bi ngeen def juumu leen euh, li tax juumu leen nag dinañ ci waxtaan ak yéen parce que dañu dem ba toll fu nga xamante ni warteef la ci bépp sénégalais mu jóg taxaw jàkkaarloo ak lii nga xamante ni moo nekk ci suñu kanam muy Macky Sall parce que kilifa su fekkente ni waxam euh, moog. waxi xale ñooyam wala waxi xale tane ko comme ni ko suñ président waxee ay waxam moom da cee diw laalo ba nga xamante ni foo ci jàpp rek eh, doo doo te daanu daal à tout moment ti ba tax na Macky daal laisse tomber euh, di leen wax nag yéen ñi nga xam ne yéen lañ fekk si seen doom ji toog di afe nit la ku nga xamante ni très honnêtement ku président Idrissa Seck am ci moom yaakaar la jotante na ak moom waxtaan nañ weccante nañ ay xalaat ci lu bari ci lu ma ci xam ci xam naa ni li ci ëpp mooy li ko gën a ñor du lu ko sa Seck di jox waaye lu defar fii mu dëkk la loolu ko ci dugal nag ñun ñii ñëpp ci loolu la ñu nekk ci la ñuy xëy ci la ñuy gont di leen wax ni bàyyi leen xel jouru vote bi mooy li am solo parce que Idrissa jàppale bi jàppale bi du loo xamante ni rek dañuy nekk ci micro yi wala wër ci mbedd yi di ko wax li koy fal mooy carte d'identité yi képp koo xamante ni jëlee goo sa carte d'identité demal nga jëli sa di d'identité nga denc ko fu yàq eggul suñu eggee ci le 24 février comme ni ko suñu frère waxee ñun waxuñu ay waxu deuxième tour premier tour lañ bëgg a taxali ko ak Macky sàll pour commencer liggéey bi nekk ci liggéey bi. parti réew mi nag mënoon nañ ko bañ a tudd fii ndax on parle plus de parti mais on parle de coalition IDY 2019 et dans cette coalition yow ci nga bokk parce que coalition bi ay parti ñoo ko constitué ak ay mouvement de soutien ak ay association donc à partir d'aujourd'hui vous faites parti intégralement de la coalition IDY 2019 ñu tàllal sunu loxo nag bu baax di la dalal bu baax dan maa wax léegi fi ma toog ñu ni ma kii ngeen di dalal day ku ama ama am solo la ci tuubaa gi rawatina ci quartier bii ñu nekk waaye nag indil na la it ñu am solo nga may ñu rek ñu tudd seen tur indil na la Manel Fall di porte-parole adjoint du réew mi membre du secrétariat national indil nañ la Cheikh Omar Lo teewul fi Hadjibou Soumaré Hadjibou 2019 indil la Cheikh Samb jiite mouvement ba ñuy wax jàppal ma jàpp mi ngi nii toog indil nañ la Mohamed Cissé Mohamed Cissé mii toog président Idrissa sekk moo wax ni Mouhamed mooy suma taaw mi ngi nii toog juróom-ñetti fan yi Idrissa Seck def Touba këram la nekkoon moo koy fa yoroon euh, mook délégation bépp te loolu c'est une première dans l'histoire politique de monsieur Idrissa Seck indi lan la soxna maam Ami Mbacké di doom ci sëñ Moussa Nawel ba nga nee toog soxna maam Ami Mbacké indi la soxna Aram Gueye di taalibe sëñ Moussa Nawel mi ngi nii toog indi la soxna Maguette Ndiaye di conseillère départementale de Mbacké ma nga